may ñu ba ëllëg bu ñu woté ay yeneen investisseur muy ci walu finance muy ci walu hôtellerie muy ci walu commerce ñu mëna ñëw fekk ci ndax liñ gis ne kat commune bi kat bess na lool nak su amé c'est parce que souf ci dañ ko ar aarin goo xamné and ci ak population nga xamné ñoo ci jàppale ndax fi kat xam nga suñu mbokk yi dëkk fi kër Bara ñoo fi doon sàmm kon ñom buñ ci andul won xëy na lii dina jafé

bu ñu la ko livré fii ak at weer bu jot ñu daggal 88000 fii ak fukki at ak juróom nga moom sa kër loolu njëriñ bi mooy sénégalais yi nga xamante ne dañ daan fay luyaas ba pare di dajale as tuut boo xam ne moom la ñuy euh, jël épargne ko banque jënd suuf. bo dajalee fukki at lo jëndé suuf nga toogaat wat defat sa gros œuvre wat touti bala ngay tabax sa kër rek dina jël ñaar fukki at walum kër mom benn dépense la ci nit di def moy sa luyaas nga jox ko banque bi mu jox la kër go xam dang koy fay ci diir bi nga ko war fay nga mom sa kër loolu nak li nga xamné ne koy andi moy commune def ni monsieur le maire Alioune sar def manam dégg woté président de la République mu jël suuf su tol si 400 et quelques hectares jox ñu ko nga xam ne première phase mooy 120 hectares yi nga xam ne phase bu nekk 1000 logements la leneen li mooy maire yi nga xam ne ñoom ñëpp dañ nekk ci axe Dakar Thiès Mbour nekk ci autoroute à péage ndaxte projet bu mel nii balaa muy dox li ci am solo mooy ñu ñu collé autoroute bi ndaxte day tax dem beeg dikk bi gën a yomb ndaxte nit boo ko nee demal dëkk cinquante kilomètres ak fi ngay liggéeyee faaw nga yombal ko dem beeg dikk bi looloo tax ñi nga xam ne dañoo ne ci autoroute bi moo xam Kër Moussa moo xam Sébikotane moo xam Diamniadio ak ñi ko wër yëpp nañ def ni monsieur le maire Alioune Sarr jël seen suuf jox ko benn partie bi promoteur yi état encadré ko ba nga xam ne benn naxante du ci am ku ci ne mën a def li nga war a def bu ko defee sénégalais yi suuf yomb leen am na ñu ma naan nag quatre-vingt-huit mille bëri na un million cinq cent apport bëri mën na niru loolu waaye bu ñu fàtte fan lañ jóge nit balaa ngay àtte dara da ngay xool fan lañ jóge fi ñu jóge woon mooy ay programme yoo xam ne quinze millions vingt millions lay jar boo waroon joxe apport wu tey un million cinq cent poofu mën na am cinq millions ngay joxe boo waroon fay fii quatre-vingt-huit mën na am foofu cent cinquante mille par ngay fay lii nag dañ ko natt ba nga ne fexe nañ ba ci projet yi di ñëw yëpp diggante soixante mille ba cent mille ku koy fay luyaas war ngaa mën a dugal sa xaalis nga am sa kër di ko fay benn yoon leneen li mooy fonds de garantie bi nga xam ne état baa ngi koy préparé ñu ngi koy préparé weer wi ministre des finances na dix milliards dugg na ci dinañ fexe. fii ak fin d'année ñu structuré ko sotti ko ba nga xam ne kuy dem di jëli kër donte couturier nga maanaam euh, da ngay ñëw atelier nga yor donte taxi nga yor donte yoro bulletin de salaire rek boo fa demee banque bi dina la mën a garantir yow ngay fay weer bu dee donc loolu moom mooy doxalin bi leneen li nag mooy dinañ lancer li nga xam ne mooy campagne d'inscription campagne d'inscription mooy lan mooy mois de novembre dinañ fexee ci internet